virage moom mënul woon yombu ci kenn ndaxte yaakaar naa boo tolloo fii mënatoo toll fooy tànne équipe bi ci seen histoire ay équipe yu am doole la donc foo mënti woon dal Afrique du Sud Angola Soudan benn yombu ci donc amaat nañ yeneen équipe bu Maghreb match benn par benn mais objectif prioritaire bi mooy championnat parce que gis nañ ne équipe yu bëri yi bu ñu ñëwee dañuy problème donc bo xolé presque di nga gis fi lu mat équivalent ñaari équipe donc ñu ngi liggéey amna ñu bari ñu qualifié wul won dinañ gën a concurrence bi gëna metti ku sonu sa benen morom ñew ñu dem. def comme niñ ñu Raja rek ndaxte équipe yoy tam ëpp ñu doole Raja donc gëm ko la rek ndaxte lo contre ay nit yu jógee ci asamaan wala 22 gaynde 11 contre 11 budget yek avion yek milliards ci biti lay des bo xolé 2002.

donc euh, joué snaps boo paree enchaîné waat ñoom ñoo choisir doon footballeur donc dañu war a ñafe remercier ñëpp sénégalais du Maroc sénégalais yi fi nekkoon diaspora waa Tëngéej waa Sénégal ñëpp bàyyiwuñu kenn. a ah, jafe-jafe yi moom du lu bees da ngay waaj rek ndaxte jafe-jafe soit da ngay toog di jooy wala nga wut solution boo fay dem loo ko teral teral teral jox ko bis bu bees bu ñëwee teral kook lépp boo demee di nga dund loo xam ne boo ko filmé Sénégal jooy bis bi dina màgget lekk bi dina daw sa biir dina daw mais yooyu yëpp da nga koy préparé dina baax allah. Música